ki nga xamante ne dafa wax ne moom citoyen la ki nga xamante ne dafa wax ne dafa dëkk ci gox nekk doomu gox bi di tiitaroo fi mu dëkk lii rek moo ko war sangu solo jaay nit ñi taar amul solo xamul am solo mooy nga xool ne sa gox soxla na nga summeeku bul xaar kenn ndax am na waykat yoo wax ne bul xaar looy def defal looloo ci fekk mooy loolu tey lii ñu def nii tey luñ ci fekk rek xam nañ ne jàmm lay doon. jeunesse su ginnaaw raay ak jeunesse su commune bi ñoom ñoo dajale seen i juróomi dërëm ak seen i ba dajale ko jëndee ko ay bouteilles ak ay ak ay bagages pour sensibiliser toujours rek ci wàllu cet avant tout dañuy ñaan sunu borom mi dara tëwul mu dakkal tawat bii di coronavirus mu dàq ko génne ko ci dëkk bépp génne ko ci àddina mais ñun ñi nga xam ne nag danoo nekk euh, ay quartiers yoo xam ne danoo sous-développé ñun suñu doole wut noonu te bëgg nañ sensibiliser suñuy doom sensibiliser suñuy yaay ak suñuy baay ak ñëpp ñoo xamante ni ñu yeewoo leen ci gox bi

képp ku ñëw war am say war a raxas sa loxo installé na ko ci point yi angle bu nekk c'est simple utilisation bi yomb na boo ndox génn nga laal jël savon laal def nii boo soxlaa eau de javel am na fi ba say loxo set nga soog a dugg kër jàmbur yaa ngi dégg nga fermé waat ñun ñu ñëw waa quartier bi tamit génn dajale seen i ñaar dërëm ak seeni dërëm yi ñu am yëpp ñu jënd ko ay biteel dolliwaat ay saabu dolliwaat ay eau de Javel pour mën ko teg ci kaw tali bi pour nit ñi di ci raxasu liñ ci jublu nag mooy jàpp ci xeex bi yaakaar naa ni feebar bi comme que nee naan set moo ci muccal nit kon ñun ñëpp war nañoo góorgóorlu ci set dañuy sax yàlla pour nga jaamu ko sax da parce que waxtu juróom yi pour nga taxawee ko sax da ngay set dañu nit bala moo julli sax na jàpp ba pare mu soog a julli kon loolu l'islam moo njëkk santaane set kon ñii ñaan ñëpp affaire yi nañ ñëpp jàpp ni yëfu ginnaaw raay la yëfu ñëpp la